bureau yow na ngaa ñàkk jom dégg naa nga taxaw sa buntu kër ñoom laa Lam ñoom Kouroupa ñëpp taxaw nga ne ah, awaa maamu daf ma sonal kii kii yéenew ma sama soirée kenn bëggatul ñëw ndax man yaa sa cottu ndey yow bu ma la yéene woon barki dem naa la yóbbu ci ci ngay liggéey sa gel siri moom wax loowee dëkk bi dina yëngu de soo wax loowee naa sa data ndey de xam nga yow xam nga ma jëlal vocal bi na nga yónni ku la neex duma ma la ko falaam vocal direct a lay def yow yaay jaam yow yow yaay jaam ma doomaram maa yàq sa soirée ma kat data ndeyam tey ay ngay te gaat la 23 baara mun dina yëngu baara mun dina yëngu si di du ma njàpp du ma ndey njaay li ma la teel bari na de nga kat sa ndey googu sa kër yaay gu taagu gu pata pata gee xam ne boo fa duggee bu ma génnee damaa amee jékkee ma dindal garab boo ma wax looy ma tepp sa lëfal ndey de li ngay xewi fay doo ma raam su ma saagaa nit ñi nga kontaan ku ma ci xas nga sax barki dem bi may gaarawaale g eh, ah, at at at noonu nga noonu nga kontaanee at the best noonu nga kontaanee ni ma ni ma maa ngi lay wéef léegi tey ma xeex ne maa lay yàqal yow yaa tos sa cottu nday seytaane barki dem nga woo ma kalaame ma ci may Maly Ndiaye wax ma lu ne ñu dem kër waale ngay nuyu Maly Ndiaye mel ni ko yàlla yaa foo yaa kat sa ndey yow gisoo koo dara sax ah Ami Diop mi la bàyyi di génn ak moom mooy jëm mooy tàng sa xol yaa kat sa data ndey boo waxee ci man ñàkk nga jom heure bi daaw la woon koor gaa ngi waaj di heure bi daaw la woon jooy jooy métti ci koor gi ma xool ci Matar yow xam nga ne su doon du ma jege ci sa dara sa soirée heure boo gëstoo gis ma di way dama xool xamal ni maa ngi jëpp sa lafal ndey Matar rek ma jaaxal juba juba nit ku baax kooku yaa toj sa cott ndey yóbbul yóbbul vocal bi si kii bi naan soo moytuwul conférence de presse laay def journal Siri Diop daf maa dugal ci coow bañ tëj ma ci kaso bañ laa tëjoon Siri waa kon yow sa yow sa sa tëjin na tëjoon Siri moo ko waraloon Sidi moo ko waraloon. lee. Goga dégg nga ma. waaw ni ma ko waxee sama émission laa koy waxaate ci live bi. deux heures du matin la ma woo dugal ma ci coow xale bu jigéen ma xam nga dem ma topp sama xol jël taxi dem ba kër jàmbur. violence au domicile dóor ko yu bëgg a dee toj ay veeru këram xëy gendarmerie faar woo ma ma dem uyu ji. nani. bañ ma fa téye ñëwul. Baye Zal mii kay nekk nekkul suñu ménage nekk ci waali mii Baye Zal fa jiitu wool Baye Zal nga laaj ko. la ilaha. samay mbokk jëlal ma avocat kon ba ma génnee ñëpp di ma bàyyi Sidi man xam nga ne awa amaami bu nekku woon day li muy li muy nekkee dof ci nit kon kooku ma ak moom boobu lay jeex. mais liñ moo wax rek ànd yàlla moo koy jeexal. kon yow daa pare ni ma la déggee ngay waxee aw ama yow sa ànd ak Sidi Diop maanaam tifaaxan. tey pour wax di gàtt jeex na. daa jeex. waa jeex na. Ah. programme bu ma ni déglu ma rek moom pour ma leeral sénégalais. waaw kan ma ko waxee sa moom émission Mbaye Kouthia. waaw. programme bu ma sénégalais gis. loo xamante ne si Sidi da cee bokk. waaw xam ne awa ama mi suba teel moo tax mu dem. ma boogaa yaa may dégg. bu baax a baax a baax a baax a baax. dégg nga wala déggoo ma. yow rek laay déglu fi mu ne fi dama ni tekki di la déglu. événement buñ ma gis. waaw Sidi Diop nekk fa. waaw wala muy wala muy événement Sidi Diop sax mataa taxaw ni ma awat ñëwal nga liggéey dama lay fay damay dem liggéey ndax man oomam ah, a bu góor